alhamdulilah rabil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون yéen mbokk yu tedd yi ci wéeru koor wu barkeel wi nga xam ne ñi ngi ko doon séentu tey ceer ba jàll na balaa yàgg ñu ne ah wéeru koor wi fi jaaroon ngalawaay balaa wéeru koor a passé nang ci jël benn tàggatu ci jëkkante ci aw yiw loolee nekk yiw wu rëy ñel la ci weeru koor waaye ngi la boo ci génnee it nga mën a saxal loolu e yéen bokk julit xamal ni it boo jógee di jaamu yàlla bu ko jaamoo lu dul lam yoonal ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam indi ko loolu rek la la yàlla di nangul moytul ma bakkaar waaye moytul ma lépp loo xam ne dañ koo sos ci diine ji rafetlu ko te yonent bi jàngulu ko woon ay saxaabaam aka texe ki teg tànkam ci sunna aka texe ki nga xam ne moo doyloo njàngalem yonent bi sax ala siratul mustaqim ku mel ni day mooy nar a texe ca àjjanay borom ba ay yéen mbokk julit na ngeen xool seen bopp fan ngeen toll ci yàlla bala ñu leen a taxawal ci kanamu yàlla di leen xisaab fan ngeen tolloon ci moom ngalla waay góorgóorlu leen ci baril tiyaaba yi góorgóorlu leen ci moytu bakkaar yi ci jamono bi ngeen nekkee ci benn délai boo xam ne waxtu wii may wax ak yéen am na ay jaam yu wuy ji seen boroom balaa julli gee ñeneen topp ci du dog du dog du dog kon yow xamoo foo toll ngalla waay jamono bi nga nekk di dund góorgóorlul ci loo man lu baax nga def ko xam leen na àdduna ji ñu nekk loo ci mën a ñàkk su dee àndul ak sa diine ñaaw xamal ne kenn ëppalewu la waaye xam leen na àdduna bii ñu nekk lépp loo ci mën a dajale ca sa diine rafetul xamal ne amoo dara perte nga àdduna perte nga àllaaxira mbokk wërsëg mi ngi nii sunu borom yàlla xam na ne ne mooy tax diina taxaw jaamu yàlla yu bëri ma ngi ci aju moo tax borom bi subhanahu wa taala gàddul ñu ko daa dina bind ma nit ñi ak jinne yi lu dul ñu jaamu ma amma bu dee wërsëga man maa leen di wërsëgal yàlla mi nga xam ne mooy borom kattan gu màgg gi loolu moo tax ba sabablu ngiree jot wërsëgu yàlla woowee lu jaadu la waaye na nga xamel ne day suñu borom jalla wa ala lam bëgg ci ñun gannaaw ba muy borom xikma borom yërmande borom tedd nga borom mbaax lam bëgg ci julit bi mooy jubluwaayam bi gën a rëy ci àdduna na nekk jubluwaayu jaamu yàlla liggéey booy liggéey na doon liggéey bu lay jàppale ba nga mën a jaamu yàlla bépp liggéey bi dox sa digganteeg jaamu yàlla loolee daw ko loo mën a daw ay yéen mbokk julit xam leen ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala day nee na mi ngi woote ca kërug jàmm ga ca mooy jubal ko mu neex ila siratul mustaqim soo bëggee texe texe gu sax soo bëggee xéewlu xéewlu gu sax dina fu ne nga dóor fa sa bopp ngir am alal waaye fexeel juboo ak sa boroom fexeel sax ci aw yoonam léegi àdduna jeex suñu borom lu dugal la ci àjjana joo xam ne nee na kërug jàmm la ca itamit lépp xéewal la mu ne képp ku mucc ci sawara ñu dugal ko àjjana kii day mooy ki texe ay yéen jaam yi xam leen ne dundug àdduna nekkul lu dul bànneex bu ndaw boo xam ne day naxaate rek ay yéen mbokk jurit sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ñaanam yu siiw mu naan yàlla suñu musiba yàlla doo ko def ci suñu diine na am mbokk julit du tee ay du ñàkk musiba di dal ci bakkanam ci alalam ci njabootam waaye mu ne yàlla suñu musiba yàlla boo ko def suñu diine yàlla yàlla boo def adduna muy nekk suñu jubluwaay bi gën a rëy yàlla yàlla boo def suñu mboole mi xam-xam yem ci xam-xamu adduna kese loolee kon lum lay jàngal mooy julit day ñaan allaaxira nekk jubluwaayam ñaan diineem doon diina ju mucc ñaan lam xam ca la koy jëriñ àllaaxira ëpp lam xam ca la koy jëriñ ci àdduna yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ki nga xam ne dafa xëy jël xolam at ko ci àllaaxira xam ne lu mu yàgg-yàgg falaa jëm ku mel nii day yàlla dina jël ak woom la dugal ci xolam ak lu mu mën a ñàkk ci àdduna yi day jàpp ne moom ko woom le la te it fokk yàlla may ko lu mu suturloo ci àdduna amaa ki jël al addunay kese teg ci xolam ku mel noonu yàlla day jël ñàkk taf ko ci ay bëtam su amoon ay milliards it mi ngi kër këriwaat pour yeneen i projet ndax day jàpp ne amagul ba tey te yàlla dana tasaari ay mbiram ca du am ci àdduna lu dul la ko yàlla tuddal mbokk àjjana taaru na lool suñu borom wax ko ci téeréem bi ci waxin bu kawe suñu yenente leeral ko ci sunna leeral bu xam ne ni yow julit day mel ne yaa ngi koy jàkkaarloog moom di ko gis waaye mbokk it sawara tar na loolu suñu borom yàlla ñangal na ko yenente yàlla bi ñangal na ko ci téere bi yàlla bi ak xadis yi ba mel ne yaa ngi jàkkaarloog sawara ngalla waay góorgóorlu leen ci lépp lu leen yóbbu aljanna ca moytu la leen di yóbbu sawara bokk na la gën a màgg lay yóbbu doomu aadama ba ajjana mooy mi wéetal yàlla bañ koo bokkaaleeg dara buy yaakaar yàlla lay yaakaar heure buy woo du woo kenn ku dul yàlla du sukkandiku lu dul kenn ci moom du jàpp ne kenn mën na koo jëriñ adduna wala alaxira lu dul yàlla directement amul kenn ku muy doxale ci digganteem ak yàlla waaye mbokk gannaaw loolu ngeen taxawal julli joxe azaka moytu tooñ seeni mbokk julit ca képp ku ngeen yorol ak ngeen jox ko ko da ngay gis ne lii day képp koo xam ne nii sax nga ci bunte àjjana yaa ngi ubbeeku sa kanam ñu góorgóorlu lépp loo xam ne xam nañ ko ci lu baax ñu sax ca te xam ne day suñu borom yàlla amul lenn lu baax looy def lu dul ne yàlla subhanahu wa taala dana ci yëkkati say daraja waaye faral na ci say bakkaar ngeen moytu bakkaar yu mag yi sunu borom subhanahu wa taala nee na bakkaar yu mag yii day di njaaloo gaag sangar gaag càcc gaag yu deme noonu képp ku ko bàyyi day dinaa ko faral yu ndawam ya ay yow julit bul xeeb ci tiyaaba dara loo mas a def yàlla dana la ko woon yowmal qiyaama te suñu boroom xamoo lan la barkeel ci say jëf yonent bi alayhi salaam wax nañu ko dugg ajjana benn xat la may mu naan wax nañu ko dugg ajjana benn car buy lor ci yoon bi la dandal ila axiri kon yow bul xeeb ci lu baax dara naka noonu it bul xeeb ci lu bon dara xamoo ci ban jëf la la yàlla di jëppee abadan ba tàbbal la sawara ay yow mbokk julit ay jaamu yàllaa ngi nii yàlla yombal ko lool bokk na ci loolu mbokk lii nga xam ne mooy askar yi gannaaw ba nga jullee ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne fa mu jullee ba pare toog na fa daa di wax subhanallah fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu tëje ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir nee na ku mel nii day mboolem bakkaar yam gaddu woon bu bari woon ba mel ne puurutu géej yàlla subhanahu wa taala dala koy baal su ko defee mbokkeen nga xam ne seytaane njëlbeenu kombaam ak yow mooy fexe ba doo def lu baax am naa boo tee ba koy def nag mu ñëw yàqal la ko am na koo xam ne ay cati tuñam rek ñooy wax subhana sa sa kenn xamul balaa ngaa wax indi minute dóor na ci loolu ma lan wax yépp mbokk loolu seytaane moo koy def lan la waay dee ko teewal subhanallah subhanallah ba fanweer ak ñett wala nga ne subhanallah alhamdulillah allahu akbar ba fanweer ak ñett ndax lam la mën a jural ci ngërëmal yàlla jalla wa ala yeneen ci bi salallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne foo jillee ba pare daa di jàng ayatul kursi lenn moo lay tee dee mooy nga tabbi aljanna na ngeen baril mbokk julit di jëfe la ngeen xam ci tuyaaba wallahi bari na doomu aadama loo xam ne xam nga ko nga sàgge na ko boo demee yowmal qiyaama da nga matt sa loxo sànni lu tax moo di ne xoolal lii lam ma mënoon a jural boo xamoon benn subhanallah lam lay jural yowm alqiyama benn astaghfirullah lam lay jural benn la ilaha illallah lam lay jural lépp loo ca sàggane woon da nga ca mere sa bopp yowm alqiyama waaye mbokk julit xamal ni amul benn farata bu yàlla gàll soloos lu dul ubbil na la ca bunti naafila yoo xam ne nii njëlbeenu njëriñam mooy yowmal qiyaama la manqué woon ca farata ya suñu borom day wax malaaka yi xool leen ci dossier ay naafilaam lépp lu ca baax ñu mottalee ko farata ya loolu moo tax ba góorgóorlul bi nga jullee sa waxtu juróom bul sàggane julli wiitar bul sàggane ñaari rakkay fajar bul sàggane arrawatib ay waxtu la ngay julli avant farata ya waaye boo joxee zakaatit bu ca yem bari lal di génne ay sarax foo yëg ne ngërëmal yàllaa nga fa def fa sa alal bu weeru koor passé bu frankulaayi ne ba déwénit góorgóorlul ci ay tuyaaba bu la yàlla mayee nga at makka su la mayee kattan nga mën a dellu dellul su la mayee kattan nga mën a omra ju omra jil góorgóorlu leen mbokk ci jukko yu rafet amul lenn luy jàmbi di mën a yaakaar mu texeer ko ëllëg lu dul la nga xamee ni nii moom mooy jukkoom ji rafet su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk suñu borom subhanahu wa taala noonee la ñu yombalal ay jaamu yàlla yoo xam ne ñëpp a ko man buur beeg baadoole bi millionnaire beeg kay amul dara góor ak jigéen ka tëdd lalu hôpital ak ka nekk ca tool ba yonent bi alayhi salaam ne xanaa du ngeen kaay ma tegtal leen li gën ci seen jëf yi gën caa sell ca seen boroom moo gën a màgg sax sarxe wuru sa xaalis moo gën a màgg jihaad fi sabilillah ba seeni noon di dóor seeni loos ñu ne ko xaka yu mi yàlla yónni mu ne mooy ngeen di baril zikrullah fu ngeen toll ngeen di tudd yàlla benn sahaaba bu ñuy wax abdullah ibnu yus ibnu busr radiallahu anhu ñëw na yonenti yàlla bi bunti jaamu yi day bari na ay nawaafil yi waa lan nga may digal ma sax ci mu ne ko fexeel ba sa lammiñ wi ba mu deñ mukk di tooy ci la nga xamee ni nii mooy la di di tooy ci tudd yàlla jalla waala tudd yàlla googe am na benn wirde bu ñu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyil moom la sahaaba yi doon wirde taabi ñu di ko wirde wirde woowu mooy lan mooy nga fexe bis boo xëyee nga wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir nga wax ko téeméeri yoon sunu yenent alayhi salaam mu ne daan di bindal téeméeri tuyaaba teggil la téeméeri bakkaar da nga mel ne ku goreel fukki jaam ca seytaane du la jege sa bisu keroog loolee buxaari soloo na ko muslim soloo na ko noo nit la yenent bi alayhi salaam doon ñaaxaati ci ne koo xam ne daa wax subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi nga wax ko téeméeri yoon ba nga xëyee wax ko téeméeri yoon ba nga nekkee ci guddi amul kenn koo xam ne dina ñëw yowmal qiyaama indi jëf ju gën a rafet say jëf xanaa lu dul koo xam ne daa jëf lu tol ne yow wala boog mu ëpp lële lu mu jëf kon nga la waay nañ koy def soo ko bul manqué téeméer suba téeméer ngoon soo ko doon def ñaar téeméer rek yaa xam wala leneen yaa xam yonente bi alayhi salaam mu ne xanaa lu dul ko def lu ëpp loole xam leen mbokk bokk na lu gën a matale loolu lépp loo xam ne day ëmb loolu lépp di la yeggale ci daraja yoo xamee ne nii jëfoo ko mooy baril di ñaan sa borom subhanahu wa taala yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ñaan day mooy jaamu yàlla ay daanika jaamu yàlla yépp daa tënku ci biir ñaan te li ñuy defal yàlla amul lenn lu ci yàlla gën a fonku mooy ñaan giñ koy toog di ko ko ñaan boo xoolee mbokk julli lépp ak ñaan la ñaan mooy lan mooy kii ñaan yàlla mooy xolam mi ngi wékku ci yàlla mu xam ne man kat ku lottu la man kat ku tële la ku aajowoo la te yàlla mi may ñaan moom day mi ngi may dégg mi ngi may gis li ma koy ñaan am na ko te am na yërmaande ci defal na ko te xam naa ne kenn mënu ko ku dul moom kese loolee ngay wékku ci yàlla mbokk jëlit mooy tax ba yàlla gërëm la amul kenn kuy sax di ñaan yàlla bañ a découragé lu dul yàlla dana faj aajoom boobee dana rafetal mu jëm ci ëllëg dana bokk ca ñuy texe ci biir aljanna waaye naka noonu mbokk jëlit ak a perte képp koo xam ne yaa ngi am soxla di ko ñaan keneen ku dul yàlla même kooku boo doon yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne yaa ngay këpp ne yaa rasulullah wala ngay ñaan ne yaa rasulullah xettili ma mbokk yàkk yi ñaan ab xat yéen a yem doomu aadama bi amul droit ñaan ku dul yàlla amul droit sukkandiku lu dul ci yàlla amul droit dellu lu dul ci yàlla ngallaawaay mbokk julit gannaaw loolu góor góor lu leen ci baril la nga xamee ni nii moom mooy julli ci sunu yonente salallahu alayhi wa sallam yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na julli goo julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn kuy baril julli ci man lu dul yàlla baal ko ay bakkaaram fegal ko ay aajoom ca itamit da ngay gis ne bokk na ñuy gën a jege yonent bi yowm alqiyama ñu ëppoon la nga xam ne dañuy julli ci moom loolee tirmisi soroo na ko ak nisaa'i ibni xibbaan ñoom ñëpp ñu wéral ko loolee kon mbokk julit nañu góorgóorlu xam ne day suñu borom yàlla moo tabax ajjanaam utal ko yoon utal koy jëf waaye defar sawaraam utal koy yoon utal koy jëf xam leen ne ni ajjana amee ay yoon noonu la saware amee ay yoon la jiitu ci noonu mooy bokkaale ak sa borom bokk na ca bàyyi julli bokk na ca dem xuus ak ñay xuus ay yonent bi sunu borom nee na waa sawara buñ leen laajee lu tax ngeen sàggaan bu dugg sawara la ñuy jëkk a wax mooy ñun day lam nakun lam naku min al musallin ñun daawuñu julli mbokk ku dul julli du jullit amul ñaari wax ku dul julli du jullit borom xam-xam yi kay fa ñuy sikk sàkkaa mooy gannaaw bu mu julliwul ma ngay toroxloo ko tuub xam ne man jàmm bu sàggan la amma ki bàyyi julli faaliwu ko moom jàpp ne moom loola wóoru ko kooku du jullit gannaaw ba ñu ne ñun daawuñu leen miskin waaye it dañ daan xuus ànd ak ñuy xuus kun naa na xuur ma alxaidin ay waaye mbokk jullit bàyyi leen xel waxu borom boobu ñun kat yàlla li ñu tàbbal sawra dañ leen xuus rek ànd ak ñuy xuus ak a bari ñuy xuus suñ jamonoy tey xuuskat yooyu dajale ay téeméeri junni yi nit di leen wax ne julli amul solo woor amul solo kaay leen ñu sant rek kenn duñu jiitu àjjana jiital ay junni junni nit di leen gërguru ci ne leen kat kaay leen ñun day yenenti yàlla muhammad yàlla feeñalaat na ko suñu biir kaay leen ñun ñoo yor yenente bu yàlla bu bees loolee mbokk ay xuus la yoo xam ne ku ci ànd ak yow xuus amul kenn ku lay jiitu sawara sunu borom yàlla moo ko wax kunna na na xudu ma alqaidin ay lépp loo xam ne yaa ngi cay jaar di ca romb ca da yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ka nga xam ne moo la ko jàngal loolee ma nga lay jëmee la nga xamee ñi ni moom mooy sawara lii kon mbokk nañu góorgóorlu ci lii jéem a moytu Dakar suñu kemtalal kattan jéem a moytu aar suñuy cër suñu kemtalal kattan ngalla waay nañ aar suñu nopp yi nañ aar suñu bët yi waaye lu gën a màgg loolu lépp mooy suñuy làmmiñ nañ xool li ñuy wax xam ne yàllaa ngi dégg li ñuy wax lépp loo wax da ngay gis day jeexital ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa sawara day dañuy jël seen kanam roof ci biir sawara seeni tànk féete kaw dara waralu ko woon lu dul wax yu ñaaw yañ daan wax ca seen lammiñ ya ca la gën a màgg ca loole mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala wala weddi kaddug yàlla wala sosol yàlla loo xam ne nii yàlla waxu ko yii mooy la gën a màgg loo xam ne lammiñ dana ko wax yal na yàlla aaral ñu suñu diine yal na yàlla saxal ñu ala siratul mustaqim yal na yàlla tàbbal ñu ci bunt yi wi ñuy ba àjjana yal na yàlla dox suñu digganteeg lépp lu mu xaraamal ci ñun yal na yàlla subhanahu wa taala yéwénal ñu lépp loo xam ne yiwu àdduna la yiwu àllaaxira la yal na yàlla boole ñu ca ñuy jiitu ci yërmandeem boobee yal nañu yàlla musal ci toroxtaange àdduna ak toroxtaange àllaaxira mboolem julit yi nekk ci coono ci guerre ya ak xiif ya yàlla mi nga xam ne mooy dogal lu ko neex yal na yàlla teggi ko ci jàmm yal na leen remplacer placé seen place fitna ba lii di aafiya ca lam leen nattoo yàlla subhanahu wa taala musul ñu ci yàlla na yàlla wàcce jàmm suñu réew teeteel ñu suñu ndaw musul ñu ci ay yàqkat yi musul ñu ci ay képp kuy woote jaami yàlla di leen yóbbu ci ak réer saxal ñu ci sunna rey ñu ci sunna dekkal ñu ci sunna bala ñu yowmal qiyam ñu ànd ak imaamu ahli sunna sunu yonenti muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين